Heavyweights.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 octobre bi weesu benn xale bu jigéen bu am 19 ans moo doon dem di fay facture téléphone ci yoon bi mu dajeeg benn waay bu mu xam mu supporté ko ci motoom waa ji dawal moto bi ba ci benn béréb bu weet daal di wàcce xale bi violé ko pëttëlaw teg ci dóor ko ba mu xam ma ne xanaa foofu ay nit dëkkuñu fa sawaay yemul foofu dee ndax ginnaaw bi mu violé ndaw si ba noppi teg ci dóor ko ba mu xam daa fab essence sotti ko ko daa koy taal waay waay waay ki yéen nekk xale bu jigéen bi ñu taal na tey wuyoo ci turu Shayma ñun ko fekk ci ab station de service bu ñu abandonné addina bi léegi dootoo xam xew waa def yëf yi ci boppam bi mu xëyee ngir effacer jaasi moo demal boppam commissariat dal di sosu layam ñu defa àndoon ak corom bi mu egsee ba ci benn station service mu bàyyi ko fa ngir dem jëndi lu ñu lekk nee na bi mu dellusee la gis xale bi di takk ci la tiitee dal di daw <laughs> wii lay gën a yomb xam nga rek boo waree feeñ yaayu xale bi ñu rey nag ci boppam nee na waa ji rey doomam du bii mooy bu njëkk bi mu bëggee violer doomam ndax bi xale bi amee 15 ans njëkkoon na ko ko bëgg a violer <laughs> kii daa obsédé ci xale bi de soxna say wax de ñana bi loolu amee mu boole yëf yi ci yoon waaye enquête ba ñu classé ko sans suite mu jul fen ma ne ko nag loolu moo indi lii waa ji nag yoon teg na ko loxo ba ñu defeere ko li koy xaar nag mooy peine de mort waaw waaw ne ko man dey lii laa gëm ku rey daal te tay ko dañ laa war rey mu jeex takk moo tax ma li xew ci àdduna bi moo gën a graaw korona naa laa di ab journaliste bu nekk fële ca RSI rajo Sénégal international la gendarmerie bu foire teg loxo Nganima li ñu koy tuumaal nag mooy ne dafa violé ab élève journaliste këy fi mu ne nag ñu ngi xool fu wànnent di mu ki gëtëm dëgg la nag viol moom crime gënu ko rëy ba tax ñi koy def daan bu ñu teg seen kaw war na waaye nag attention attention ak loi bi ci wàllum viol ñu bari mën nañ ci nekk ay victime ndax mën na doon arme boo xam ne mooy raw bombe atomique ñu teg ko ci loxol jigéen ñi fi mu ne jigéen dina la nopp na boo ko mu xëy santage la viol ma ne dinañ bëgg a éliminer nit sax yebal jigéen ci moom mu jiñ ko viol ak yeneen ak yeneen moo tax attention attention moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Ziguinchor ca usuy doy na war ndax bis bu ñu jagleel njàngale mi di journée mondiale de l'enseignement la lañu gis Dominique Diatta di ab professeur espagnol ci àll bi buum takke ci baat bi takku ci kaw garab gi bi laa ilaha illallah moo pendre boppam wala nag dañ ko pendre fi mu ne yàlla rek a xam bu dee tamit xaru la li tax mu def ko kenn xamagu ko mi mim réew moo taxit yoon ubbi na ci ab lanket ngir xam fu wannent di mu jekki gëtëm moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca kër Masaar doy na war ñaari mandikat ñoo fa doon xeex-xeex bu metti mbir mi mu ngi xewee ca garage jaxaay bu kër Masaar ci wetu fi agence Senelec bi nekkoon mën na ñaari màndikat yi dañoo naani woon sàngara ku nekk naan màndi ba ne tàngalang bi ñu yegsee ba ci garage bi foofu la ñu jàppante xeex xeex bu yàgg ba kenn ki te ñu koy woowee ziar am ci ay gaañu gaañu yu metti ci baat bi ak ci put bi ba sapeur yi mujj ko yóbbu ci ab structure fi mu ne mu ngi ci ay soin intensifs xoolal ma lii rek keneen ca des ma nga ñu teg loxo ci gendarmerie bu Kër Massar ëskëy ma la waykat ba waxoon rek bul kaf ak moom bul jàmm ak moom ma ne sàngara bul séq ak moom nuyoo boo ko defee rek am jàmm waaye naana naan ba ne tangalang yenn saay sax nga yàq sa tubay ci mbedd mi waaye dara gënu ko ñaaw moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw korona laa wax njaayum yàmba mi nag du xale yi koy def léegi ma yenn paa léegi de lañuy jaay yamba di ki dàq dépense ëpp naa wax góor gi ab transitaire bu retraité la at yi toll ci juróom-ñaar fukk benn yoon da ko teg loxo ci wàllum jaay yamba déet waay fi mu ne placé nañ ko mandat de dépôt le 4 octobre bii weesu góor gi ca biir këram la doon jaayee yamba ji nekk ca boulevard bu centenaire ma ne foofu la doon doxalee business am laa wax te foofa lañ ko tegee loxo ci li tubaab nan flagrant délit wolof di ko wax loxo ci poos eskay góor gi nag bi mu yegsee ci kanamu enquêteur yi nangu na ne da doon jaay yamba mu hmm, waay defee perquisition biir këram fekk nañ fa ab stock benn bi def ñaari téeméer juróom fukki grammes yamba beneen bi def téeméer ak juróom fukki grammes yamba su xeet mu xeet zuy li ci gën a tee doy waar nag mooy góor gi nee na daawul jaay yamba xale moom daal mu kallafi la doon jaay yamba ma ne léegi nag moom yamba ñëpp a koy muqi xamatuma ci dara bu mag ñi demee bay jaay yamba réew mi daal tas na mu doonoon seen xibaaru buzz dig sam samedi ci yeneen xibaaru buzz